laaj li ñii laaj réew mi cinquante ans la ñu am Abdou Diouf bi muy nekk président quarante cinq ans la am waaye lan moo taxoon ñu fal ko mooy dafa jàng am jaar-jaar ñu yar ko mu am expérience am vécu nekk premier ministre ba jeexal ñu jox ko réew mi Macky Sall bi muy jot réew mi cinquante et un ans la am kon du mag ñi leen di gëmloo ne xale yi dañu war a jor jël réew mi xale boo laa laaj réew day fekk nga am xam-xam day fekk nga am jaar-jaar day fekk nga am vécu day fekk nga am expérience day fekk nga xam état boo laaj réew mais réew mu mel ni Sénégal bu leen kenn gëmloo ne affaire moo koy gérer réew mi xam-xam moo koy gérer expérience moo koy téye réew moo xam ne dañ naan am na pétrole ak gaz du ñu ko jox ay xale ñu yore ach ñu yore réew mi tàkk bu réew mi tàkkee ñun ñëpp ay bu réew mi tàkkee ñun ñëpp ay perte xale yoo xam ne li tax ñu xam leen mooy coow booy laaj réew ni ñi di dee ngay réew ñuy taal ngay laaj réew ñuy violer nit ñi ngay laaj réew ñuy agresser nit ñi ngay laaj réew ñuy taal këri jàmbur ngay laaj réew ñuy taal oto jàmbur buñ la réew mi nga taal réew mi. gis ne ku gis tey ni ñu génnee àndandoo li muy li moo ne ñi too ñi doon xool génn nañ mouvement euh, coalition Benno Bokk Yaakaar bu Rufisque Ouest dañu mobiliser wu pour Amadou Ba jël ndam li au premier tour mouvement ANCP bu alignement bi nga xam moom lañu àndal lépp loo xam ne laaj na ko dinañ ko def ànd ak yéen si liggéey bi ba ndam li ñu am ko nañ jëli ci seen i carte ñi bindu ba pare bàyyi seen i carte ci centre yi nañ dem jëli ci seen i carte leneen li mooy nañu fexe rek ba ñun daal bu ñu kenn détourné bu ñu kenn nax nañ ñuy dem bu le soir di vingt quatre ni de woteel Amadou Ba moom la ñu joxoñ pour ñu am continuité wa wax fii day yomb si ñun parce que li tax ñuy wax fii day yomb si ñun mooy dañu am ay leaders yoo xam ne ñoo nekk Rufisque Ouest ku si mel ni Alioune Mar mi nga xam ne mooy maire commune de Rufisque mooy li honorable député wax sànq léegi na muy def action yoo xam ne si Rufisque Ouest la koy def moo tax ba ko démb waa jokkul kaw bu ñu demee si moom naka dañ soxlaa gaal mu ne leen loolu gàcce la sax ñun ñu nekk ay lébu dëkk Tëngéej man dinaa xar sama tànk tubéy dinaa def le tout balaa prochain rawante gaal bi am dinaa leen defal gaal rawante loolu moo tax mu def action boobu keroog andi jox leen ay un million cinq cent da leen si rawante gaal loolu nag du guléet ni mu koy defee si côté boobu noonu la koy defee si jeunes yi noonu la defee si population bi donc bu ñu taxawee fii il faut ñuy wax si loolu population yi ne li ñuy wax ku ñu jàppale Amadou Ba parce que dañ koy jàppale parce que dafa am ay leaders yoo xam ne dañuy sonn si dëkk bi ku si mel ni Alioune Mar ku si mel ni honorable député Souleymane Ndoye bu ñu xool si lenn nañu xool ne ñun bu ñuy voté ñoom si suñuy président de la République fii si dëkk bi parce que booy voté da nga war a xool si vote bi na ngay voté vote dafa doon utile xale yi day amuñu sax ñàkk yaakaar ci ñoom mais dama ne ñii nga xam ne ñoo fi nekk tey yore nguur gi te di ko doxal doxalin bo xamni bi kenn du bu mucc ayib la dama ne ñooñu buñ leen waté ci dëkk bi inshallah ni ñu dem ba terre bi taxaw ni ñu dem ba euh, autoroute à bi taxaw ni ñu dem ba li nga xamni ci manam moy réalisation yi nga xamni ne moom lañ fi réalisé lolu dama ne dinañ ñu fi defal lu mucc ayib. di wax ne daal encore une fois ñun délégué de quartier réuni and nañu ak ki nga xamante ni moy mooy euh, kii ñu euh, désigné du doigt ne moi le suis président de la république moi le président Amadouba. Ba di Amadouba, Amadouba, Amadouba, Amadouba.